Mm-hmm. waaw xale bu góor bi boo gisee mooy xam naa li war a ak ndongo rek mais waaj moom mu def dafa ëpp. waaw moom sama ki ma tuddee ah, sama ki tubaab sama baay ñoom moom moom moom lañ tuddee yaayam ndax yaa ki ko jur ki bokk sama papa ndey ak baay doomam lañ ko tuddee waaw mbokk lañ daal Touba la dëkk. waaw léegi xew-xew yi moom damaa xëy ba ma xëyee kër ga 7 heures 6 heures du lañ ma woo ne ma am na ku ñu rendi seeraas ma ne rendi loolu ëpp na di ñu ma am na ku ñu rendi après ba ma ñëwee ba daral nag ci la sama papa wax ne ma Pape Diop ne ma suñu mbokk la Touba dëkk ndax ma ti Bey sama doom bàjjan moom yaayam lañ ko tuddee kon waa mbokk bu njege la waaw muy ku baax waa am benn dégg naa moom amul benn problème wax dëgg mosuma ko gis nag ndax dañ na ko waroon wax dama leen ko seet dama del del place Pape di nemmeeku sa mbokk yi mais dégg naa dafa bari kersa moo tax mosu fee taxaw mosu fee ñëw mais waa ji baax la wax dëgg yàlla waaw am benn problème wax dëgg yàlla waaw moom paaka la jël léegi bañ wax bañ wax coowee ba pare daf ko fa doxee gannaaw ren jël paaka rek ren bi waaw comme bi muy def xarkay da ko def da ngaa reen ni ko yem ma ci nag waaw mais kii ki ma wax moom am na information yu rëy ne moom la noonu la da ko rendi ko rendi comme xar waaw dafa ko dawale ginnaaw daf ko dafa sëgg di liggéey liggéeyam rek mu jël paak bi dawale waaw nan la demee te femme bi euh, waa ji am na ñetti jabar ñetti jabar la waaye waaw billaay ñetti jabar Touba Touba la dëkk billaay te dégg naa sax nee nañ ci suba ci fajar gi am na am na benn soxnaam boo xamante ni mi ngi ko gunge ba orel ba mu jël orel pour dem Touba. waa bu doon di ñibbi ci suba gi fajar gi mu yóbbu ko ba pare doo ko xëy si tàggatoo moom ne ko mu ñibbi mu soo a xëy si ci la lii am waa affaire bu garaaw waaw ci fajar gi waaw dëgg la ay 7 la xew nag dëgg na 7 heures ñu naan nee ma 7 la waaw mais affaire moom da ngay reewasoon àdduna moom da ngay reewasoon mais loolu jaru ko non loolu nag jot ba ci am information ndax léegi la léegi bañ demee ba am nañ ñëwoon ci man ñoo xam ne ñoo bokk moom nekk dëkk Touba mais bañ ñëwee bañ woowee commissaire bi waaw bu nekk ku baax commissaire Ndiaye artisan bi ko yor léegi dafay nekkut daa wàcc daa fanaan wàcc mais dangeen ngeen bàyyi ba suba yéen mbokk yi ngeen ñëw police bu ko defee ngeen wax man man maa ko woo man maa woo commissaire bi waaw. waaw wax dëgg yàlla mu dal leen ñoom ñëpp ne leen li àdduna la léegi bañ ñëwee ne leen suba boo leen xëyee ngeen ñëw boo leen ñëwee incha ñu toog waxtaan après mu ba leen mu xool kay lu ci lu ci war mu def ko. ñoo bokk fi ñuy liggéey mais man ñoom ñaar ñëpp dese naa leen miin miinu ma leen lool ndax man ma xam nga ñoom ñu ngi sogaas biir biir seeraas ñun ñu ngi biir daral moo tax euh, aw ma ci lu ma lee kii loolu daal ba xam mais ñoom daal ñoo bokkoon fi ñuy liggéey waaw ndax ay deru ay bopp lañ doon fees bopp xar ndax bu gaa yi feesee ba pare di naa ñoom ñoo doon fees deru bopp yi di ko génnee waa waaw lii moom wax dëgg yàlla moo juddoo ba léegi maa ngi ko di kuñ jam am na mais ku ñu rendi moom maa nga soog gis ndax seeraas fi am naa fi loo 40 ans fi laa laa yoroo mais lii moom maa ngi ko jam moom am na fi ba taay mais rend moom maa ngi koy doog a jàpp nañ ko jàpp ko mi ngi pëlis fiqué dégg ma ne la woo naa commissaire bi commissaire bi ne ma ku yor enquête bi dafa génn léegi comme bokk yi ba ñu ñëwee ñu bëggoon dem ci moom mu ne na ñoom nañ bàyyee ba suba waaw mooy commissaire Ndiaye léegi mu bu subaa ñoom mu ñëw ci ñoom mu teg leen ci yoon waaw waaw mu teg leen ci axe ba sàppoor nag yóbbu na ko mais man ba léegi xam mu nekk ndax man maa ngi sama place bi daral mais ba léegi dew ma fa information yëpp fii la mu fekk waaw ndax man yooyu mun ma ko seetaan ndax xam nga dafa garaaw. na ci askan wi da kay amul ndax fi mu ne nii gars yi dañoo war a jël seen matuwaay yu bëri surtout waa Sokaas bi nga xam ne société la dañoo war a jël seen am benn brigade boo xamante ne pour ñoom kese la ñu leen di surveiller ndax fu pa ay paaka nekk ak ay jaas dafa war a am citoyen dafa war a am ah, kii ah, nu mu tudd ay policier wala am gendarme yoo xamante ne ñoom ñooy surveiller xale yi ku ci dé ku ci yëkkati def lu dul yoon ñu jàpp la waa Pikine nag moom di ngi def seen liggéey bu baax. macha allah ay jàmbaar lañ commissaire ba mu fi nekkoon liet naa camara adjudant yi commissaire Ndiaye mu fi nekk nga xamante ne ku baax moom tam ñoom ñoom ñu ngi seen liggéey mais nag lépp ñu ko euh, ñoo war a ñoom waa seera ñoom ñoo war a jël seen matuwaay sokaas jël seen matuwaay mooy wax ak président mu defal leen foofu brigade police ak a gannaaw ñoom dañuy contrôler ndax fii paaka ak jaasi nekk dafa war a am matuwaay loolu moo leen manqué loolu moo leen manqué waaw waaw noonu la waaw waaw waaw di nuyu nag euh, boo xoolee euh, ñun ñu ñuy wër ñëpp wax dëgg yàlla muy préfet safaa Ndiaye maire Dalivor Baye Diop vraiment seen liggéey ñu ngi koy def waaw ñoom wax dëgg yàlla lépp luñ fi dégg danañ ci taxaw ba mat waaw Moustapha Ndiaye waa ju baax préfet bu baax ñu noonu duñu taxaw guddi ak bëccëg ah, Baye Diop mooy suñu maire moom tam duñu taxaw guddi ak bëccëg waaw commissaire moom tam mi ngi taxaw guddeeg bëccëg mooy Ansu ah, mooy Ansu Ndiaye Ndiaye Ndiaye la sant waaw commissaire Guinaara tamit baax ñoom ñëpp lu ñu fi dégg wax dëgg yàlla ñoom ñooy njëkk ñëw taxaw waaw macha allah ñoom seen liggéey moom wax dëgg yàlla taxaw rafet na rafet na trop jërëjëf